dikkati na jàpp nañu bugaan gay dani sàmm sa kàddu mer ba maar day taal yi laas yéen ma ko tribune yéen kaay naan maan gëm sa bopp mobiliser na société civile ak communauté internationale bi nag ngir ñu wax ci kaa bugaan gay dani gii ak tëj gi nga xam ne tëj nañ ko ko sàllaaw ca kasoog tàmbaaga bugaan nekk ci cellule koo xam ne ñeent fukk ak juróom-ñett ci doomu aadama yeneen la ko bokkal condition yoo xam ne ci wàllu cet matalewu fa wér gu yaram moom wékku ci loxol yàlla borom bi rek forum du justiciable sàkku ci nguurug Sénégal mu yelleef waaye tam wér gu yaramu Bougane Gueye Dany gii Cheikh Abdou Gaynde Fatma defub appel naan président Diomaye ak Ousmane Sonko wax leen ci lii justice ci boppam moo war a soowee démocratie bu réewum Sénégal bu sukkandikoo ci Aliou Tine Vox Populi naan man sàmm sa kàddu ña ngay naqarlu anam bi nga xam ne nestayee Bougane Gueye Dany Barthélémy Diaz ne amul benn politicien boo xamee tàbbal nan la kaso ci anam wii pakete la jébbal la lu ëpp ñeen fukk ciy détenu jàppam gi moom prise d'otage la sa kàddu ak i élément am ñu farlu ci campagne bi Pape Djibril Fall naan traitement gi ñu def Bougane Gueye Dany ñaaw na condition yi ñu ko bàyyi yéeme na tey ba ma yégee anam yi nga xam ne noonu la nekkee ca kaso ba damaa woo daar daar acteurs yu société civile yi Pape Djibril naan ñi ngi janoog pouvoir boo xam ne mi ngi répété erreur ñu fi jógee Thierno Bocoum naan tension ah. réew mi ma ni la kenn mënuñoo tere def li nga xam ne moom la ñu war a def l'évidence naan en tout cas gëm sa bopp ma ngay diggante société civile ak yi sàmm ak ak doomu aadama lépp ak ci naan sàmm sa kàddu ña ngay naqarlu ba mar day taali l'info naan maan moom sàmm sa kàddu dafa jàpp nag réew mi la ñuy jéem moo tax ma nga yekk keteme daal diggante Thierno Bokum Pape Djibril Fall ak Barthélémy Diaz ña ngay wax ay bal yoo xam ne mar day taali deux minutes pour lire l'essentiel naan en tout cas lii ma ki egg gu faa woon ak ñun bugaan gay dañu nekk ci néeg boo xam ne bari na nit ba mar day taali condition yi métti waaye nag dara man koy muñ te it jàmbatu ko l'indépendant naan maan waa sàmm sa kàddu ci boppam ñoo koy jàmbat naan condition yi nga xam ne tëjee nañ ko ko du dëgg du yoon ñaaw na Dakar Times naan loo ci manti déggit otage bu système la moo tax nag ñu daal di ko yóbbu ca paquetage fa yallaahu l'exclusive yéen a kaay naan man kaa bugaan gay dani bi ma nga ba bitim réew chancellerie yi di ko waxtaane média internationaux yi di ko waxtaane ca États-Unis diggante la monde ak Jeune Afrique RFI ña ngay wu ci situation opposant bi nekk réewum Sénégal ay rapport yu société civile ak ay état bu droits humains ak liberté publique waaye tam partenaire au développement yi dugal ci seen loxo gannaaw bi ñu xamlee nag ne dañ koo dugal ci néeg bu bari lool ay nit lopp ñeen fukk ñuy xool nag lan lan jéem ci yaramam forum du justiciable naan en tout cas sàmm rek nañu sàmm wér gu yaramam le mandat yéen kaay naan kon offensive nationale ak internationale moom moo am fi mu ne ngir nag ñu bàyyi njiital gëm sa bopp mu ñibbi ci njabootam El Hadji Moussa Cissé ex député responsable politique xam leen ni Kaffrine ci boppam ña ngay sàkku daar daar libération bu Bougane Gueye Dany booba le quotidien le quotidien débat Amadou Ba Amadou Ba ne ko pare naa ngi relever défi bi Vox Populi di ma xamal ne moom am ci boppam mujj naa accepter Ousmane Sonko débat ba sans condition nag bu sukkandikoo ci Zahra Iyane Thiam mandataire bu jàmm ak njariñ moom Zahra naan Amadou ci boppam ma ngay xaar Ousmane ko ci débat bi pare nan nag te ñoo ngi koy déglu na jàppug bés jàppug date jàpp waxtu ak fan ko nar a defee kii naka lañ ko nar a defee en tout cas pare nan ci débat bi l'observateur naan maan la joo nekk ci guddi gu bër setagul pôle judiciaire financier bi tëng lak jóob diggante alalam ak am amam yéeni kaay futur média bi naan ña ngay sax-saaxee daal moom DG bu LONASE woon ay mesures conservatoires yoo xam ne yu métti lañ ko teg nañ ay carte bancaire am jël ay wotoom teg ca loxo résidence principale am ñu teg ca loxo lépp luy am amam ci wàllu immobilier teg nañ ko loxo waxtu woowu critique yéeni kaay naan maan ministre Abdourahmane Diouf jël na sëram daal di tabb ca UAM critique naan maan bul dem de kan dénkoon université bu Sine Saalum moom it jël junni juróom-ñeenti téeméer fukk kër ñeent ci ay agent ñu war a liggéeyal juróom-ñeenti téeméer juróom-ñetti fukk ak ñaar ci ay étudiant yéeni kaay bi naan maan juróom benn fukk ci ay chauffeur jël na ko ngir ñu dawal ñett ci ay woto kepp saax-saaxee goo xam ne maar day taali libération naan kon lu toll ci ñaari téeméer ak juróom benn ci ay agent de sécurité mu jël ko ci fanweer dong ci ay sit yu war protégé protéger naan maan boo desee ci man ma xamal la ni niki démb dégluwaat nan Cheikh Dieng janale ko nag ak daaf baak projet bu an fan ba Sud Quotidien naan kon balaa ngay dem xamalit ne filière gerte moom ma ngay dund jaxaan na ma ci réew mi mi gannaaw Sonacos bu Kaolack boo xam ne société la buy sukuraat fi mu ne diggante financement yoo xam ne coppet ci bii teg ci bee la ay opérateur yoo xam ne lu leen neex def concurrence goo xam ne maar day taali Seydi Ba porte parole bu CNCR ne ba ñu libéré filière bi ba tey mbir mi day gën a mitti autorités yi bees la ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ba joyanti ko Le Soleil yéene kaay naan ma bu ba jaañ ma ngay waxtaanee mbay ci réew mi ne bëgg nañu taxawal ab coopérative agricole yoo xam ne ci juróomi téeméer juróom fukk juróom ñaar ci commune ci réew mi lay nekk Sénégal di dépensé junni ak juróom-ñaar fukk milliards ngir jëlee dund bitim réew andi ci réew mi moo tax nag bay dundee gi ñu yaatal ko ci réew mi ko Quotidien naan maan waxtu woowu moom Barthélemy Dias ma ngay rog a jeeru Ousmane Sonko woo ko ci débat te naan ko na doon ci kàllaamay nasaraan booba yi transhumance gaa ngi mel ni tulleeg maa la ci réew mi Walf naan maan dafa mel ni Pastef daal ma ngay gololoo APR ak Parti démocratique sénégalais Tribune yéen kaay naan maan ca moom Ousseynou Pouye nee na niib dembaanta ja wàññi dooleeg opposition ci yile élection ñu jublu bu joxee loxo mën naa mitti lool ci opposition ba ca diwaanu mbaaw tension waa grand place naan maan Alioune Sarr it lancé na activité yu alliance pour le Sénégal àndandoo ngir Sénégal xam leen nag gis-gisam ngir Sénégal daal di tàbbi ci am njëkkee ko ci mbay goo xam ne dees na ci sóob dooleeg loxo ngir ñu moomal suñu bopp bay dundee gi gouvernance économique goo xam ne doole ak sañ-sañ waaye fit ak leeraangeeg diplomatie économique bu am solo la ñu bëgg ci réew mi feebar faju ci anam wi gën la ñu bëgg ci réew mi taxawal luwaa goo xam ne day dëggal assurance maladie ñaari téeméer ak juróom fukki milliards développer industrie bu or bi niki noonu lépp loo xam ne wurus la laale loi d'orientation ngir transformer ci réew mi lépp loo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci suuf wala ci géejug Sénégal te naan ci législative yi maa nga Pastef boobu directeur su dikkal nu ci Abdou Khadre Sall njiital mouvement askanuk Sénégal mu wax ci crue bu fleuve Sénégal bi nga xam ne lu waaye di njàmbat moo nekk ci bët gànnaaru réew mi naan faaw nu jël mesures yi nga xam ne moo war ngir nag prévenir bépp catastrophe boo xam ne mi ngi yor suñum réew ci waxtu wii nag dañu war a teggi politique fële jëfee li nga xam ni mooy solidarité réew nag faw mu am ay capitaine d'industrie te nguur ci boppam moo ko war a créer ci référentiel bii nag jox nañu opportunité kon nag bu nu soobu ci wàllu politique ba yàq li nga xam ne mooy yaakaaru sénégalais yi législative yi nag mooy ñaareelu wër nga yu présidentielle yi te ku ñu fal nag faw nga am majorité ngir dérouler te ñëpp xam na ni opposition bi nga xam ne moo bàyyeekoo woon ci nguur gi fi nekkoon immunité lañ soxla ngir rëcc kon nag tension l'enquête quotidien naan maan crime foncier yi ci suufu tamit maar day taali mbir yi amee ca Sangalkam lu toll ci juróomi téeméer fukk ak juróom ñeent ci ay hectare ñu daal di koy saax-saaxee autorisation amu ca ñeent fukk juróom ci ay hectare moom bi na géej fayal laaxu bal tàkkul sagar xeeñul cin fukkul bënnul yax réer ay agent impôt et domaine ay magistrat ay autorité ci wàllu diine ab dignitaire lébu bu mag bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo saax-saaxee suuf si daal di koy séddoo waxtu woo tribune yéen kaay naan man en tout cas Abdoulaye Sy ma nga naan ci bët gànnaaru réew mi buñ ca waxul làmbaay ñaaw ndox mi xam ne toolu ceeb la wala toolu dugub wala toolu mboq lépp la sax-saaxee l'observateur naan man kaay ma xamal la kan mooy na Dieynaba Ndiaye soxna la soo xam ne ay coups blessure la dëkkee volontaire répété nag saa bu neexee daal wulli yéen kaay futur média bi naan maan moom borom këram woon nekk médecin chef bu district bu Matam moo koy def déposé na plent France am ay blessure France Dieynaba ngay saigné France Dieynaba ca kaso ba France ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te